c'était des des questions photo bi ni euh, nit ki mën nañ ko xàmme euh, loi dafay tere ngay dugal photo nit ni jël photo photo nit à son insu euh, ba pare photo bi nit ñi mën nañ ko xàmmee des des choses de ce genre mën na tax ñu ràjjee nit ki et tout ça donc euh, bon ñun wax naa leen ni administrateur bi ko dugal moom au moins jël na soin wu nëbb kanamu nit ki te problème bi c'était pas ñun li ñuy dugal noonu c'était pas pour yàqal nit ki wala pour euh, leneen lu xew wala pour tenue bi wala pour den yàq image police mais xëy na administrateur bi ko déglu ndax mu dugal ko c'est acte bi nga xam ne moom la gis donc euh, ñun des questions yu mel noonu lañ doon posé source photo bi ak yooyu. liñ lépp luñ ñu laaj lépp luñ ma laaj c'était à propos de LCIS euh, nuñ koy gérer ak photo bi point laaj ñu ma leneen ci loolu lañ yem honnêtement j'ai répondu aux questions ci liñ ma laaj te ci dépassé wuñu ko déjà jeudi dama dem mais sama avocat amoon temps après mu wax ak commissaire mu donc nañ ko yóbbu lundi biñ ko yóbbee lundi euh, ma ñew lundi déjà y a eu des problèmes ci buntu bi parce que kiñ fa fek dafa né par force dañuy raxasu ci ben ndox bo xamni bouteille Evian la xawma ban genre liquide mo ci nekk ma ko man li duma ci raxasu je ne fais pas confiance à ça fofu le problème est commencé ñu génn coow li commencé tension bi commencé yéeg mais on a pu garder le calme bañ a saaga kenn bañ d'or. kenn parce que tamit on peut pas dire que nous luttons contre l'indiscipline ba pareil, de créer benn genre désordre ñu respecté ba suñu avocat nous bu mu ñëwee ñu dugg toog ndekete convoqué nañ yeneen ñaari administrateur page bi donc maanaam ñun ñëpp convoqué nañ ñu ñu dem toog ba mu yàgg ki ma war déglu woo ma ne ma ndax yaa ngi ma ne ko waaw ñu ngi fi toog mu ne ok xaar leen ma jarive ñu toog tuuti ak sama avocat xaar ko ñu dem ba 30 minutes après mu woowaat ma ne ma dem leen bu ñu leen soxlaa dinañ leen woo. dañ ne dañ koy exploiter dañuy exploiter téléphone bi peut-être jéem a xool loo xam ni je sais pas loo xam ne du yoon peut-être wala ñoom ñooy ñoom ñoo xam lu ñu ciy seet. mais man li ma mën wax j'ai la conscience tranquille ci loolu je ne fais absolument rien de grave rien d'interdit donc euh, mën nañu exploiter mais nag bu ñu paree tamit nañ ma delloo sama yef. parce que damay liggéey ak sama téléphone je travaille avec mon téléphone donc ñu confisquer ko noonu man daf may yàqal j'ai une famille à nourrir ak yenen, ak yeneen donc mënoo jël yëfu nit ki rek téye ko nii nga ne da ngay jël le temps qu'il faut waxuñu ma jour dañ ne heure bu ñu paree waaw dañ koy exploité ba heure bu ñu paree man nak vraiment je n'ai pas euh, <laughs> temps bo xam damay tok di xaar ba heure bu ngeen paré man j'ai besoin de mon appareil pour travailler donc euh, là dina wax ak avocat yi ñu xol lan lañ mën def est-ce que mën nañu wax ak ñom xol ñu jox ñu date kenn la ñuy pare ci exploitation bi wala lan exactement la ñuy téléphone lool sax duñ ko wax mais man dama bëgg xam kenn lañ ci paré ak kenn lañ ma koy delloo. Mhm. Bon, Beni fait y avait vraiment les gens de, de frappe, Guy Marissagna, connus de passage, Fatima, avec euh, tout le groupe et tous les gens qui étaient venus soutenir. il euh, y en avait un hein, des mouvements. mouvements euh, mouvement pour la solidarité et le développement. Nous avons des points de presse. Parce que les journalistes ont le droit de C'est leur droit le plus absolu. Wow vraiment policiers yi fa nekkoon may ñu ñu ne taxaw leen cinq minutes mën ngeen wax on a dit d'accord bi Fatima waxee ba pare en français et en wolof ñu doon dem di ñibbi am ñeneen ñu desoon ñoo xam ni dañu bëggoon jël ñoom tamit seen euh, seen témoignage bi ñu taxawee di wax ñu ne noo fay du ngeen taxaw ñu laaj leen fan lañ mën taxaw ñu ne damay leen fële porte millénaire ngeen jaar droite am na benn restaurant nekk foofu mën ngeen taxaw foofu ñu dem taxaw foofu may wax ak ñoom benen policier ñëwaat dagguñu ma ne presse bi est-ce que mën ngeen dugg maison de la presse pour wax ñi ne non instant bi xaw mënuñu fa dugg ma ne kon instant bi grawul nañ dem ku bëgg interview après jëlal sama numéro ngeen woote y a pas de souci euh, ñuy dem bi ma dox di dem vers la police pour jël auto bi ci laa gis benn bon policier wër noonu ak journaliste ak yeneen nit commencé tu pouvais pas reconnaître qui était qui

am si vraiment nous avons ne ci police c'est des gens vraiment bien vraiment mais tamit amna ñoo euh, tout le temps dañuy jalgati wa ñun nak tant que y a des bavures policières ñi gis na que togn amna de ce côté ba mu leer parce que tamit duñ dem ci internet bi di affirmer lo xamni amul mais ba mu leer ñi gis ni li leer na dinañ ko dénoncer parce que suñu liggéey dafa laal loolu et on va pas reculer du tout moy bépp comme bépp beneen société bo dem ci dëkk bi benen entreprise bo dem amna ñu def ni ak amna ño xamni dañuy jalgati am ño xam du ñew heure du ñu li ñëw si du ñu wacc heure donc c'est des choses que nous, vraiment ñun citoyens on doit nous autoriser à dénoncer affaire yu mel parce que c'est notre droit le plus absolu ñu laaj déjà le respect policier bu taxawé day bëgg respect le respect est réciproque nit ki ngay waxal jox ko respect parce que boo ma joxul respect man personnellement si je joxul respect du le la jox respect du ma la considérer et je l'ai montré devant la porte de la police bi ma ñëwee ASP bi ne da ngay par force dama ko ne yow boo taxee boo xee ba ma raxasu man kon man lépp lu ma wér ci salaatu faati yàlla nañ ko dindi et raxasuuma parce qu'il y a une manière de parler aux gens il y a une manière de traiter avec les gens on n'est pas des chiens on n'est pas des animaux je parle je prends l'exemple par exemple du commissaire bi nga xam ne yor suñu affaire bi euh, dañuy ñëw il nous vraiment bon day def liggéeyam mais tamit hors du ligue dañuy waxtaan ci lu bari def ñi offrir café def ñi offrir il est vraiment bien avec nous mais nak bu questioner joté day def liggéey ba nga xamni ki mi ngi def liggéeyam mais buñ ci paré paré na ci donc nit yu mel noonu lañu soxlo euh, ci dëkk bi ñi nga xam ñooy suñ suñ tenue di di comporter wu avec les gens correctement parce que d'accord même si les policiers payent des impôts dañuy fay impôts mais ñun tamit dañuy fay impôts ñom ñu leen fay ñom sen impôt bi ñuy fay ñu koy fay ñeneen lool ñom la concerné mais man impôt bi may fay mom ak yow ak keneen ak keneen moom cotiser fay leen ñom donc ils nous doivent le respect lool c'est par force. bu ñu bëggee xeex benn affaire Sénégal il faut que les gens puissent se réunir pas ñi koy xeex di saaga wala di di di di wàcc terrain bi dóorante mais il y a une manière de dénoncer ay procureur ñi ngi fi ay yeneen ak yeneen nañ def suñu lettre bind comme dañuy tere rassemblement nénañ <laughs> loi bi dafa à partir de quatre mooy rassemblement nañ def par trois groupes fu nekk ñu dem déposer suñu affaire déposer lettre de protestation wala lettre de kii bu dañuy marche taxaw fenn marche diko dénoncer quitte à ce que ñu dem jël journal si nga xamni ni ngi ba CNN ay TV5 ñom wax ak ñom ñu dénoncer ko parce que dafa nek lo xamni man fi ma jógee au fait man dëkk bi ma nekkoon j'ai l'habitude de policier bu la jappé da lay nuyu respecter la jox la cër li nga seex ak moom kayit kayit point amul leneen mais fii au Sénégal on se rend compte que souvent les gens dañuy subir mais duñu dénoncer bi ci réseaux sociaux la yam mais il faut que ñuy jóg di agir am na foo xam ni foofu nga war a dem policier bu la tooñee am na xam ne foofu nga war a dem porter ko plainte gendarme bu la tooñee am na foo xam foofu nga war a dem porter ko plainte donc yooyu c'est des choses yoo xam ne c'est un combat boo xam ne Sénégal yëpp dañu war jógandoo def ko mu nga nekk au Sénégal wala nga nekk à l'extérieur parce que li am Dembe, wala mu am ci ay université wala mu amone bon ay étudiants yu ñu rey ak yooyu am na fi kenn ku nekk mën na doon kooku suñu frère wala suñu sœur donc faut pas attendre que ñun ñu nekk victime pour suñu famille sogu a nañ ci jóg légui nañ ci jóg légui ñi xex ko parce qu'on nous doit le respect on nous doit le respect